fële ca diwaanu njaareem mu mel ni tey lu yéeme dafa xew kii nga xam ne mooy meeru dëkk ba di mali Fall élection locale yi passé dafa demee woon coalition Wallu Sénégal yàlla dogal Jurbel yépp maa ngi ko woteel ko mu gagné dëkk ba ci biir loolu nag ci la daal di jël mairie ba jébbal ko APR daal di transhumé daal di dem APR tey nag ñu amaloon journée lancement set setal mu lëkkaloo ci woon ak waa APR waaye dafa mel ni ndaw ya ànduñu ak moom ca loola dafa mel ni ndawi dëkk ba fipp nañu mu daal di yegsi nag di ko yuuxoo ne ko suñu mairie waroo ko tayle suñu mairie waxoo woon ñi li ngeen teewlu bu baax ndaw yooyu noonu di fësal seen naqar ci maire bi nga xam ne dañu ko votel ba pare moo daal leen wor mbokk yi mi ngi noonu yéen ko gisal kon nag képp koo xam ne meer nga tasaaw askan fal la ah nga jël sa mairie dal di koy jébbal Macky Sall mën ngaa waajal li ni mel te xam ne waa dëkk ba yépp meer nañ mere nañu ko wax nañu ko ne ko fii élection législative doo fi campagne ndax foo génn ci dëkk bi ñu waxoo la ndax yow kat ngor